54 3 2 0 c'est bon. c'est mhm. mbokk yi asalaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp. Eh, ci bés bu tedd bi nga xamante ni ñu ngi ci muy bésu màggalub Serigne Touba di ñaan rek yàlla yokk leeram bés bu yàlla sàkk mu mën loo ko ñëpp ñëpp di ko fekkee incha allahu rabbi ñu ngi fii ci Touba Ilipor Touba Ilipor ñu fekk fii koo xamante ni moom it surtout borom bés bi la Cheikh Ahmadou Bamba muy eh, Serigne Modou Boussa Dieng kenn dootul présenté yeneen kasket yi nga xamante ni am na ko mais ñëpp xam nañ ko ñëpp ràññee nañ ko daanaka léegi casquette yi mu am yëpp xàmmee nañ ko muy ci wàllu côté eh, njaboot gi wàllu côté li askan bi di dund su ma ko waxee muy ci côté bi nga xamante ni moom mooy ci côté politique bi moom it xam nañu ko eh, ci li nga xam ay position yim ci am ak kàddu yi nga xam daan dina ko ci yëkkati eh, tey ñu ngi ci màggal gi dañuy dugg ci màggal gi laata ñu ciy dugg ñu bàyyi sëñ bi gannaaw bu ñu ko ziyaara ba noppi bàyyi ko mu nuyu mbokk yi ñuy seetaan ci Sénégal. dara magal màggal gi kese kese sax la sëñ bi am parce que xuruj boobu. ci yow mu sabt boobu benn tu kilo mooy sept ans et demi yooyu mais sëñ bi jëlee nañ ko fi yóbbu nañ ko gànnaar yóbbu nañ ko fi Thiéyène yóbbu nañ ko feneen fépp a metti fépp te fépp def doon jaayanteeg suñu borom dara mais bii rek particulièrement mooy màggal gi mais l' ensemble nattu yi mu am yëpp boo ko boolee yëpp boo ko boolee nee na shahatu bi shukuri ani tadakkuri maa xatmada bayni wa bayna al askari nee na sent gum sant boromam tax na mu fàtte sax lan moo doxoon digganteem ak soldaar yi waaw nee na sant sant yàlla shahatu nee na dund na c'est plus fort que dund confronté na ci xolam ci nekkinam ci léppam bi sukkuri ci cant gu sax ci moom ani ko nga xam ne remplacé na ko muy xalaat wala muy fàttaliku maaxat ma daana nga xam ne jàlloon na bay nii entre moom mu bañ a askar ak ak soldat yi te pourtant jàmbaar dëgg la soldat yi dañ doon jël potu chambre di ko tuur ci fi muy jullee gis nga bu julli jotee loxoom bu sell ba la koy toppalee di ko puus di ko puus di ko puus di ko puus di ko puus dama ko wax rek ngir ñu xam ngir ñu fàttali ko moom tu am solo la yëf yi du lu yomb nag du woon lu neexit te dañ ko daan ñàkk war ma nu ne mais mosu ko bàyyi xel ba sobe si topp mu julli dañ daan jël fi mu nekk ñu fay buusu alcool mais def ne leen su fekkee ne malaayika yi ko yàlla booleel kiraaman kaatibiin nga xam ne su borom moo leen qualifié ne kiraaman ñoom dañu tedd lañ kaatibiin di ay yaa bindikat yaalamuun maa tafaaluun yoo xam ne xam nañ li ngeen def mooy maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid mooy raqiibun atiid ñaari malaaka yàlla booleeg nit ñi sama waaja nee na ndegam ñooñu amuñ ci problème gêné wu leen nee na moom du ko gêné xam nga kooku c'est une dimension exceptionnelle Tu sais, parfois j'ai l'habitude de dire que attention à la dimension personnelle. La dimension personnelle est requise dans toute station importante. ba ci politique bi muy def nii bëgg naa nit ki ñu koy ñam di xool dimension personnelle benn waaye bu ñëw rek xëy na mën a nii kat naa acca lii di lii ñu ne acca waa jaa ngi nii attention dañuy xool dimension personnelle yi de hmm, dina indi dina dimension personnelle waaw mooy mooy euh, c'est obligatoire même que qu'il y ait enquête de moralité pour certaines stations comme ni ma mais dimension personnelle est plus profonde que enquête de moralité parce que enquête de moralité suspicion là soit enquête de moralité excellente ou soit enquête de moralité douteuse mais dimension euh, personnelle requiert jusqu'à ce que enquête moralité mën na bañ a génne li ngay nëbb di ko dundoo mais dimension personnelle da koy génne. kii est-ce qu'il est faux. la découverte de la personne. parfois am sax benn élite un bon jour lañ leen découvrir malheureusement rek devant tout le monde kenn ku ne sëgg certains hypocrites tenté de défendre wattu loolu moo tax sama waaj ji nag. kan na ko yàlla dool dolli ak mbaax. sa dimension personnelle est exceptionnelle. dafa bari noblesse dafa bari lum ne du ko laal. dafa bari lum ne du ko def. dafa bëri lu ne yàlla yàlla gënal na ko waaw donc tout sa vie nag noonu la dundee ba bi muy baaje génn àdduna mu fat mu wax suñ borom ne ko mu xam ne bi mu fi ñëwee ba bi mu fiy génn nii tey julli na waxtu tisbaar bii te takkusaan bii du ko fi fekk kon kon mu seereloo bis yëpp ak temps yëpp que ne julli na waxtu yu yim am yi dox digganteem ak boroomam yëpp yëpp ci noblesse la waaw ça veut dire que daal digganteem ak yàlla seet na lépp mat na digganteem ak ñi mu fi nekkoon bu ko àddina it ñëpp mat na ñu xamee ko noonu. noblesse boobu noonu ngay wax sax ak dimension personnelle bi ba bëggul woon lu dox diggante moom ak boromam waaye tamit demoon na ba li muy jaamu suñu boroom tamit du ci lor tamit doomu aadama yi loolu tamit ñu ngi ci ndaxte nee woon du ma du ma leen tooñ waaye tamit du tooñ suñu borom ñaar yooyu yëpp bëgguma ko. waaw waaw waaw xam nga loolu moo taxoon Moussa di waaw waaw euh, c'est beaucoup plus profond encore parce que euh, sañoon na julli ci seen gi parce que d'ailleurs euh, sañoon na bañu a julli sañoon na bañu a julli ci ikrah la nekkoon fiq al fiq daf ne ad daruratu tubixul mahduraat contrainte day dindi lépp lu ñuy aaye day dindi les barrières voilà mm, waaw mooy contrainte ngant effectivement tey su ma doon lekk fot alcool ne fi te moom rek laa mën naan dama koy naan aw ma ci benn bàkkaar donc su ko dama xiif may bëgg a dee gis medd su ma ko damay damay lekk aw ma ci bàkkaar donc darura daal tubihul mahduraat moo tax arab ne la waajiba maa darura mooy devant contrainte devant contrainte la waajiba ma al ajiz aydan devant impuissance y a donc kon ñu xamee ko noonu mais ci ngoram ak gëm yàllaam ak bëgg yàllaam ak nag fam tolloon fam tolloon ñe ñe fam tolloon ñëpp nekkuñu fa de defal naa yonent bi loo xam ne aw ma ci deuxième xam nga loolu il faut il faut loolu yombu la wax nag tamit damuy dëgg defal naa bi liggéey boo xam ne amul deuxième defal liggéeyal na ko foo xam ne si ku yàlla bind mosu faa teg tànkam bu ko fay liggéeyal ak yeneen yu bëri wax yu mel noonu soo ko wax nag la ko ci yàlla defal encore kon euh, sa dimension personnel boobu moo tax mu bàyyi li nga xam ne sañoon na ko def mu bàyyi ko ngir def la li nga xam ne pour être excellent waaw di gëm bum gëm yàlla te nee na sax da ci topp mais daal gis na ne daal moom taxaw ci ndox mi ndox mi faat ko moo gën ci moom mu bañee waxtu yàlla yu jot ci julliw ko foofu moom noonu la tolloon ci suñu borom suñu borom it nag fa xaysuma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfika kullu ahad comme ni ko sëñ Tuubaa waxee nee na foo tollu ci yàlla noonu la leen ci des lépp di toll ci yow noo ragale yàlla fu ci toll rek la ci des lépp luur yàlla noonu la lay ragale yow moo tax mi ragaloon naa touché ci moom ci dara li mu bëgg sëñ Tuubaa julli ba noppi delluwaat àndaat ak ñoom te julli ko it nag lu wér la ndax moo ko nettali dëppoo na it ak archives yi nekk Bordeaux